wax ci kaw yee nit ñi ñu xam phénomène bi lu mu doon nu ñuy def ba mucc ci wax ci pàcc boobu noonu ci noonu ñu ko waxee noonu naka lay contribuer ci dépravation ku nekk ak peut-être ni ñu koy déggee. mais Pape qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils font la promotion ils font la propagande non quelqu'un qui fait la propagande mais tu n'as xoolil Pape débat bi ñu nekk ni sax daf ma soof c'est quelqu'un qui fait sa sa propagande bu fekkee propagande am dafay yàq sa société non bu ko waxtaanee ignorer ko. c'est la meilleure façon de protéger qu'est-ce qu'ils font ils te prennent Nickelodeon xale yi moom lañuy jàpp di seetaan non ñu ñoo ko sa ah. ak yeneen ak yeneen ak yeneen il le font mais partout le capitana ngay football ñu takkal la ak feneen waaw léegi ñooyu nekk ci propagande yow site sénégalais yaay ñëw jël ne ko fàng nag naan li sa nga waax léegi dafa nëbb jéego yi nga xamante ni euh, le ba Bassirou Diomaye Diakhar fay def na ko parce que barki Dembo Ndiaye mu ngi gana Ghana mu ngi woon Nigéria ñëw na jaar na Fiera euh, sànq ba léegi sooy wax da ngay duut baaraam cette communication qui doit accompagner le gouvernement ci ay actions mu uuteeg lañ daan gis su fekkee da nga am schéma pour loolu parce que quand même quoi fii ci nguur gi am na ñi nga xam ne ñooy gérer seen communication ñooy wax ñooy expliquer ñoom joxe orientation yi ci nguur gi liggéey bi muy def. su ma déggee ngay wax su dee ni lii moo muur lii da nga bëgg wax ni liggéey bi des na foofu à ce niveau. bon si xam nga. moom laa la fi mu euh, jaar yëpp. sur le plan de la communication présidentielle euh, moi j'ai pas envie d'apprécier euh, dans le sens oui bu ñu defee lii war nañ def lii. Hmm. ce sont des professionnels. ils savent ce qu'ils doivent faire. li important ki sais c'est quoi c'est de faire de sorte que la dynamique parce que dëkk. dëkk ci dynamique lay dox. Ah, APR Benno Bokk Yaakaar seytaane ga nu àndaloon xulil lu bon la àndaloon te muuroon dëkk bi te ñëpp yëg ne mu ngee dem dem na loolu tuur tiimoon nu APR loolu kenn bu kenn nangu nu ko fee dekkal jël débat bi wàcce ko bas de mm. ñu nekkaat ci niveau rade pacaré di di di non non non non non sëñ bi dañoo dañoo nekk di décoller pilote bi di dugal roue non gars yi naan ko woy kii kii mu ngi ci kii mu ngi ci mu ngi ci óol bi di agsi mu ngi door a ñëw ñu war a dellu ginnaaw non le débat aujourd'hui c'est que le Sénégal a un budget de sept mille milliards estimé dañu war a dem wuti xaalis bi FMI nee na dinañu jox nangam ñu naan bon nouvelle alors que FMI bu la joxee c'est le drame c'est la catastrophe au même moment ñu ne la bon tu peux faire des levées euh, levier de xawma lan li suñu bàyyi di wax suñu baay bi Ousmane li mu ñuy xamal ci or et j'adore ce vieux là parce que tey Sénégal pour mu am monnaie foog autorité yi dem wax ak góor googu pour ñu am monnaie déggoo ma de Pape monnaie lan la réserve d'or la yow am nga or sa dëkk il faut y aller progressivement et de façon intelligente. mooy c'est entre arrimage ak lan cinq cent milliards yooyu jox tubaab yi ñoom ñu imprimer la billet jox la waaw léegi yow am nga oor bi tax nga am xaalis France ne moom am na deux mille cinq cent tonnes plus de deux mille cinq cent tonnes d'or fu mu ko jëlee de réserve fan la ko jëlee te amul or yow Sénégal sa suuf chaque lendi ak jeudi ñu jël yóbbu waaw nga am la seul sénégalais le seul sénégalais bu am titre de mine au Sénégal il est combattu actuellement par les compagnies étrangère yi nekk di jël suñu oor xam nga lan lañ ko wax. Hmm. que son existence en tant que propriétaire de mine ci biir Sénégal gi mu dëkk moom sénégalais bi c'est une anomalie tu, tu, tu vois un waxtaan bi foofu la war a nekk Sénégal mën na am xaalisam tey mais parce que am na réserve d'or mais réserve d'or bi mu amee benn sénégalais moo am titre de mine boo xam ni tey nu ngi kaa xeex imaginez tey lundi férié lundi tey lundi férié tey douane sénégalaise day férié bi nan la ci demee di joxe convocation ne ko il faut nga ñëw parce que. convoqué kan. lañ convoqué. waaw pour. convoqué parce que voilà euh, ñu xool lui il en déduit que les compagnies étrangères bu ñu ko buggee xeex du ñu jàkkaarloog moom ci administration de mines la ñuy jaar. ci ay sénégalais mooy la ma la doon wax rek ne la sanu maam ya ay séné ay africain ñoo leen jaay africain mooy traître bi mooy war moroomu moroom moroomu africain am pour intérêt moo tax ma ne la l' administration sénégalaise nous fait excessivement mal aujourd'hui j'aurais super aimé ñu ne ma douane sénégalaise dañ dem taxaw ne benn euh, compagnie étrangère du fi génn dara ak moo neex mais compagnie yooyu bu ñuy génn kan la ñuy àndal kan l' administration sénégalaise ñoo leen dimbali ñu génn sax faf ñoo leen jox les titres ñoo leen di signer nangam nangam ministre bu fi ñëw administration boobu moo lay téléguidé loolu moo war a dakk débat bi foofu la nekk c' est à dire que ce nouveau régime la il faut l' à aller vers ça nan nga mën a comprendre Pape Ousmane ñu ne la <laughs> vous avez un pays où vous détenez 37 matières premières mais on va vous prêter de l'argent tout en prenant vos matières premières mais Pape waxtaan bi toute la presse sénégalaise foofu lañu war a nekk noonu da Dieu bàyyi yu ñàkk fayda yi. yu ñàkk fayda yi barke salaatul yu ñàkk fayda lañ nekk. yu ñàkk fayda li billaahi wallaahi tallaay. wallaahi da la neex rek. da ngaa bëgg a lu neex rek. bu ñàkk fayda yi Ousmane sonk na ko wax ba li mu jur mu jur ko nii ci réew mi. lan. waaw seen. mais Pape Pape euh, ñun dinañ fi toog ni bàyyi suñu yitte ndax yu ñàkk fayda pap ah euh, pap waa léegi en passant léegi wax la benn affaire non xaaral dafa am may seet xaaral dañuy wax lii di wax la pap dama ne pap ñun dañuy wax lii di wax lële non lan mooy wax lii di wax la wax lii wax lële mooy lan ma ñun dañuy wax lii di wax lële non c'est quoi wax lii wax je la presse de manière diversifiée traite énormément de sujets waaw mooy wax lii mooy wax lële mais Pape Ousmane déggoo ma dama la ne je vais un autre exemple mu gën a leer Pape il y un an et quelques bi guerre Ukraine bi di démarré l'Allemagne la première puissance économique d'Europe dafa dakkal partenariat am ak Russie pour défendre Ukraine mu jaral ko gaz teg gazu Russie teg yépp de côté xulil voilà ànd ak Europe ñuy jaay voilà ne dañuy dañuy gérer Russie am pas-pas gëm boppam ak fulaam ne leen amul problème ñu bloqué pipeline yeeg yëpp taxaw Allemagne dawal 6 mois 7 mois fan la teer dollar la doon faye dollar la doon fayee. rouble léegi non dollar la doon fayee avant léegi rouble lay fay. rouble lay fay waaw rouble lay fay léegi xamal nga lu kee am ful léegi rouble ba muy fay sax elle day fay plus. waa léegi non seulement day fay plus la mu doon bañ maanaam la mu wàccu da kaa lekkaat parce que amul pexe parce que Russie dafa xam boppam xam li mu yore ah. Pape Ousmane l'information sénégalaise nom de Dieu et africaine foofu la nekk maanaam je vais te dire j'ai pas envie de dire que notre presse est est, est à un niveau loolu wax tuuti naa ci wax ko mais le constat il est là Pape on gère quoi on parle de quoi tous les jours c'est quoi l'info à la une c'est du factuel alors qu'il faut aller au-delà de ce qui se passe. pourtant au-delà ngi am. non non amul. parce que yamuñ ci factuel. non non non Pape Pape Pape. il y a des dossiers Pape dama lay wax benn affaire. déglu baax li ma la wax non yan dossier la. <laughs> Pape munoo nekk ci réew bu tudd Sénégal mu ndóol nit ñi sonn xiif nekku leen ci débat boobu. ngeen nekk ah ci beneen débat. newoon ci loolu. mun non dama lay wax. maanaam tey fi réew mi war a nekk. le la dynamique bi ñu war a nekk. elle est économique tey waxtaan yépp économie la war a doon ñu wuti borom xam-xam yi am yi xam économie ñeneen ñi nekk ingénieur et cetera ñu xool possibilité yi tey jii nii Sénégal nguur yi fi nekk dama leen di ñaan nañ jël décision ferme ne léegi dañuy dakkal képp koo xam ni aa ngay jël or ci Sénégal xullil balaa or bi di génnaat léegi aérodrome bi ngeen di jaar da ngeen kaa fay imaginez nit di wàcc sa aérodrome du sax fay aérodrome bi. di jël sa or di dem di encaisser loolu du ñàkk fayda ndax lan ay sénégalais ñooy signé ok nga signé jël dem Màkka yóbbu ay nit Màkka ñu naan diw dafa baax fekk ngeen baal ma mais t'es un vénard renga tey fii mbir mi war a dem et la presse son rôle c'est ça c'est de dire aujourd'hui suñu 7000 milliards de budget est-ce que xam ngeen ni or bi nekk Sénégal mën nañ 12 tonnes yi ñoo wax jàpp 16 wala 19 Sénégal mën na ci am lii ak lii ba am 10 000 milliards d'investissement chaque an 10 000 milliards d'investissement boo ko defee ñaari at Sénégal yi dañuy dund nu raw ni Qatar di dunde waa nga ne dee doo ko def doo waxtaan ci loolu du ngeen ci débat vous préférez vous préférez nekk ci niveau bi ban niveau ah Pape déet ban niveau non xam nga bu ma ñëwee tey nga naan ma jàpp nañ diw euh, dafa wax kii ñu alors que ce pays mais Pape ñu xam nga lay gën a soof ci mbir mooy yor jamaa nii téye ko te mënoo ci dara. ci lii lañ dëkk. mais ñun nii la ñuy dundee. Hmm. waaw léegi li war a changer loolu les mesures prises sur la pêche et c'est génial même bu dee jeexagul novembre la accord di jeex non na autorités yi ferme. Union européenne loolu lañuy ñuy dox 24 sur 24 na na foofu nag laay man am envi ñoom bu ñu jëlee mesure naka sunu noonu boo xam ne c'est en notre défaveur mais boobaa on va dénoncer comme tout le monde mais pour l'heure il y a de bonnes choses qui sont en train d'être faites il faut les apprécier ba pare di xool di veiller beneen bi mooy il faut que la presse sénégalaise fuine fuine mais Pape euh, jël leen caméra yi ñu dem Kédougou jël leen caméra yi ñu dem vallée du fleuve jël leen caméra yi ñu dem ñu dem Casamance jël leen caméra yi ñu dem y a de choses à montrer aux gens et sur lesquelles on doit parler pour changer affaire bi àdduna bi yow loo fi def yow lan lan moo tax ngay xëy looy liggéey loo tax ngay liggéey dangay dund sa passion mais da ngay ñaq sa ñaq boo ko ci gisul da wuti feneen. waaw léegi yow Sénégal li nga war a ñàkk li nga war a dundeek lépp am nga ko nga ne dee doo ko lijjanti yow daal saa yoo xëyee toog njaaba njale ne ci bopp koñ bi taxawaalu mais non regarde ce qui se passe quand on parle des plafonds plafond plafonnier yii ñi kaa defa sénégalais yi amatuñ sax jot bi nekkatuñ ci c'est un débat quand on parle de hypermarché ce ne sont pas les sénégalais où sont Unacois et les autres mais il faut installer des des supermarchés nañ dajaloo xool nu ñu kaa tegee y tellement de chose à fair dans ce pays mais on préfère ces ce niveau la ban niveau. mais niveau bu suufee bi pas niveau bu suufee bi et c'est attristant c'est c'est bi. émission bi jeexul. da ngaa bëgg mu jeex. waaw ah, na jeex bu dee niveau bi la ñu nekk nii yàlla ñu ci yàlla musal te il faut pas que le régime en place di topp sa bas de gamme bu ñu topp niveau wu. jarul tontu jarul dara justice elle est indépendante na justice def liggéeyam yoonu kenn daw ci ñee di def leen jaam ne ñooy ñun nag ñu jéem a ne ci yoon bu baax bi rek kenn bañ ñoo tuumal leen. Ah. waaw. Hmm. ñu ngi lay gërëm. yàlla na yàlla def jàmm. <laughs> xulil dama bëgg naa ne buy buy dax a baax. Ah. vitamine C la antibiotique la lépp la naka nit ñi di naan. Ah. boo demee ca boutique tubaab yële xulil. cinq cent grammes yi quatre mille francs lay jar ak leneen ak leneen. yaa ngi koy jënd non. pakistanais ah. yaa ngi koy jënd fii Sénégal wax baax buy dafa baax ak yeneen ak yeneen. réew mi dafa war a neex soppeeku il faut sauf ko nag wax nga lu important. les les ñi nga xam ne ñooy liggéey ci <laughs> nguur gi te jege nguur gi. seen communication bu mu nekk ci tontonteeg lijjanteeg kii xam nga xamul seen communication di doon ci wàllu liggéey bi et la meilleure façon de communiquer c'est d'œuvrer. ce n'est même pas de parler c'est d'œuvrer gars yi xullil heure bu ñu xëyee rek gis dara lu baax bu ñu xëyee rek gis dara lu baax mooy tontu bi gën a gaaw. voilà bonne soirée. jërëjëf. yal na yàlla yokk. ngeen di gërëm. yéen doon bàyyi xel ci réew mi <laughs> Pa Assane mais vous n'avez pas synchronisé avec Pass TV. di ah. Euh, waaw nag loolu. sama loolu sama erreur la nag. war liggéey ah. war a liggéey. waa loolu sama erreur la. te Pass TV waaw dina liggéey. Ah. Euh, suba ak jàmm incha allah on fait quoi la matinale. Ah, incha allah on se retrouve le demain matin 8h30. incha allah euh, ay Ngone revue des titres très bien. 8h30 incha allah. incha allah bu soobee yàlla. jërëjëf aywa. bonne soirée dañ doon baaxee xel ci réew mi gërëm Babacar mi nekkoon ci réalisation bi on se retrouve incha demain.